فالناس جميعا يا سلام يسر مطالبي في دار سلام وعيس مامك فإنك السلام اجعل سلامة تدوم يا سلام لي وللهيال في الدار سلام surriyatan tayyibatan tajaddidu nahj nabiyyil mustafa tajtahidu sughuli bijaahihi walutan manjaba talidu harifan alaya martaba وكوفني وكوفها شيطانا وليهب وهب لها الأمانة من وسبي ومن يجيب ما دام من يدعو كريم ودعو بفضله ينال من وفضلها ما دام من يدعو كريم ودعو فضله ينال من وقصدها دار سلام du fenn tey ku fi ñëw xam nga loolu tey Serigne Bamba ko muy lu rëy jokkara kan jëmuy këram daaru du fenn tey ku fi ñëw xam nu nga loolu tey sëriñ bamba ko muy lu rey jokkarakam ji muy koram maam seexanta amoon na mu ñëw fi daam naa ko nga sëf fa maa di mbaam yaa di gor man maa di jaam yaay sama sang maa la gëm ñu xam ne yow doo doomi baay yaa gën ci ñun ndey ak jaay yaa gën ci ñun maa رحمة اليوم يا عيسى ما فنمانك واغفر لنا ولا واصف معيبنا وطل بنا وبها في الأولياء الأيوان أنها تجاوز وإيا أرحم النظما لنا سواك وأنت البر يا مروى في برزق مع خد كلها وزرا ومن كرب وخوف نجي لهما لا تختبرها بما ليست بقدرتنا ولا تقيب جاها فيك يا لهوى وأسقنا معها من معي كوثر من يختته من جميع الخلق يلاوى من كان يرشد ساقي ويهلك سا كفر وينصر من يخشاك يلاوى محمد محمد مسكى الاخيار خايدنا لجنة الخلد يوم أجري يلاوى أن يصلي وسلم دائم أنا أبدا ومن قفر ليوم الدين يلاوى mbokk yi fi teew yëpp leen ziyaare bu baax di jiital ci ziar bi Serigne Ibrahima mbàkke moom Serigne Ibrahima Ndar di koy ñaanal suñu boroom guddal fanam lool. dolli ko wér ak kàttan ba li mu yéenee liggéeyal Serigne Touba lépp mu def ci lu kawe jortam di ko jéggaluwaat bu baax comme ni ko Serigne Cheikh waxee ci coono yi ak jataay bu yàgg bi ndax ak woyofam. ak jàppe taalibe yépp ni boppam moo tax ñu sañ koo téye ba waxtu wi ñu ngi koy ziar bu baax di feeñal suñu mbégte ci moom saa su nekk nag am loo xam ni dañ koy royee ci moom tamuy lu mat a roy mooy ku ñàkk kiñaan di jëmm joo xam ni ku ne cër bu la yàlla defal bu ne yéene na la ko loolu lu mat a royee ci moom la kon mënuñu koo ñàkk seede di ziar sëriñ Mame Balla Gueye mi nga xam ni ko duppee bis bi sëriñ Cheikh Mbacke wax ci kàddoom ñu ngi koy ziar baax Serigne Cheikh mat na Serigne Mbacke ak mbokki Serigne Mbacke yépp seen xol sedd na ci kàddu yi ak yëg gi nga xam ni Mame Balla yëg na ko bis bi ak nin ki teewee ndax ku gis délégation bi mu àndal xam ni lum jox bi yitte la di nuyu docteur Fall mbay di rafetlu moom it teewaayam bu baax di jël suñu nuyoo ñu ko jaarale ci suñu mag Cheikh jenn mu leen ñu ko ko di rafetlu kàddu yi ñu fi jot a yëkkati euh, kàddu yi sëriñ moo ñu koy sant rek ndax sëriñ lii mu def suñu fierté la ñun ñi nga xam ni ay mbokkam lañu bu sëriñ dee woote lii at mu jot at mu ñëw gën a neex gën a taw féexe ñu gën cee yëg sëriñ bi loolu ki ñun ñi mbokki sëriñ di dëkkandoo ak ku mën a doon xol bu sedd nga ci yam ak mbégte moo xam ni su la ci santee mbir faw nga jëm koo matale te sëriñ yi ba li gën a neex ci bis bi mooy dañuy sëñ Muudu Roqaya la sëriñ Mbàkke di sant te sëriñ muut Roqaya di kenn ci biir njabootuk sëriñ gaawaan te njabootuk sëriñ gaawaan gépp di benn moo tax mën nañ ni mboolem buntu këri sëriñ gaawaan ni fenn fu ci nekk kilifa jóge na fa ñëw teew fi wala mu yebal fi ndawam tàmbale ci rek sëriñ Sidi Mbàkke xalifa bu maam Cheikh Anta moom sëriñ Ibra Ndar yónniwu fi kenn moo fi ñëwal boppam ci suba loolu rek doy na sëkk kon nga dellu siwaat teew fi nii euh, sëriñ Afiya Gaye ci Daaru Rahmaan di wóolu réew sëriñ ba sëriñ duppee ko doom tuddug boole ko ci bis bi ndax mosu cee génn sëñ Mori Mori Gaye mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot gi teew ak njaboot gi ma àndal sëriñ euh, Mbàkke mu sëriñ Amiroun ak sëriñ As ak sëriñ Jiili moom suñu abo suñu abo yebal ko mu ñëw teew fi ak ah, sëriñ Maamun Mbàkke moom sëñ Siidim suñu Amiroun sëñ moor Silla Njarab sëñ Maam Mor Mbàkke moom sëñ Mudu Roqaya sëriñ abo moom sëriñ Mudu Roqaya ak soxna Musli moom sëriñ Cheikh Anta soxna maam Anta Mbàkke moom Alaaji Saam délégation DG Galoba teewoon fi Serigne Mamoun Mbacke ak Soxna Ramasis ji àndoon ak association yi nga xam ni ñoo doon jàpp muy Ahibaul Qadim bu sancaan yi ak euh, organisation bi sécurité bi sëriñ Ndiir di xarita Serigne Dieye taxaw ci bis bi lool yooyu yëpp euh, Serigne ni mënutoon ñàkk tudd seen tur ci lu gaaw ngir yëg gi ak safoo gi mi ngi sant ñëpp di ñaan ci barke boroom gaawaan képp ko fi teew aajo ju aw ah, joo am yàlla na ko suñ boroom fajal guddal fan yi lool wéral cër yi dolli na ay xéewal yoo xamante ni dinañ ci gën a mën a liggéeyal Sëriñ Tuuba bis bi nga xam ni moom lañuy ñuy waajal samedi incha allah ba tax bis bii am suñ borom dafa ñu tawféex yoo xam ni kenn ku ne ci ñun lañ ko defoon daaw ba lim ba àgg fa mu àgg nga man lu ko raw fuuf te def ko ca bay romb fañ tolloon ndax dañuy dajale àddiya kër sëñ gaawaan di ko yëddi Serigne Touba ku ne xam na ni addiya ji jóge kër sëñ gaawaan dem ci Serigne Touba nu mu toll ren bu déwénee day gën a yokk kon la koy yokk nag ci ñun taalibe sëñ gaawaan yi képp lay jóge ñu ngi sant Serigne mi ngi sant ñëpp sant waa juróom yi ci kër gi ak mbagaam yi ak rakkam yi bawul kenn dëkkandoo yi ànd jàmm yi bawuñu kenn dafay mel ni jataay bi moo yàgg taxat te kilifa yi war a eh, yeewiku ñu war a wéyal njàngum xasida mi waaye cant moom lu gudd gudd gudd ci cant rek lay mën a yem lum gàtt gàtt cant lay mën a yem kon association bi wax naa ko léegi mooy Ahibahil Khadim bi sancaan yi ak yi nekk ci gaawaan ak yëpp ak dawaayir yi daayira yëpp lim bi dafa xaw a bëri ndax daayira yëpp bind nañ leen kenn ku ne sa taxawaay gis nañ ko lépp daal luñ ci am ci yiw yàlla nañ ko bokk ngërëm la Serigne Touba defaloon borom gaawaan yàlla buñ ci kenn ëpple bisimilah rahmaani rahiim maa ngi leen di nuyu leen ñaanal jàmm mbooloo mi di rafetlu. ñëw bi fii ak euh, niñ fi toogee cant moom defe naa ne ñëpp ko war a def fépp foo toll di sant sañ ci waaw bu baax a baax a baax fii nag moom maa ngi jégalu ci kàddu gi ma jël fii parce que fii moom euh, taalibe laa fi taalibe moom defe naa ne day déglu rek sëriñ bi wax euh, bu joxee ndigal ñu ñu ñu ñu ñu jëfe waaw waaw lool lool lool lool loolu dëgg la loolu dëgg la loolu dëgg la wante comme taalibeeb Daaru Salaam moom defe naa ne dëkk bi dinañ xool nan lañ ko mën a euh, soppee ba ñun waa Daaru Salaam ñu gis ci suñu bopp waaw loolu daal laay ñaan yàlla ak yonent bi ak Sëñ Tuubaa di barke borom Gaawaan euh, ndox mu neex mi nag yaa ngi koy wax léegi ndox mu neex mi moom incha allah mi ngi ñëw ñeenti forage yi bënn na ñu ngi teg tuyaux yi nañ taxaw rek ba euh, facture yi nga xam si kenn fayu ko bu ndox mi neex mi ñëwee duñ bund xataal benn euh, njaboot pour euh, fay facture loolu moom mënut am incha allah jërëjëf maa ngi leen di sant te di te di jégalu kàddu yi. defar ñu yaa Cheikh Amidou defar lii gaa yu baax xam naa ni boo defee nu baax defar nu baax man nga ko yaa Cheikh nawna la man alaaji baax ak sama gaay sant baax te aju kër Seex Faasa baax naw la yaa Seex Amidu nawna la man alaaji baax ak sama gaay sant baax te aju kër Seex Faasa baax العزيز الحمد لله برام سيغامد الأمر مرام قصور عمر مرمام خمنا لطي وامدو ma jël ay kàddu yoo xam ni dama koy sant Serigne Cheikh incha allah sunu kàddu Serigne Cheikh Mbacke Cheikh mii doomu Baye El Hadj Mbacke Cheikh moo koy jooyal santal ñu mbooleem ñi teew waaye ten Cheikh moom maa ngi sant sama bopp ndax bis bi bu amee ni naa sëñ Mbàkke Jéey suñ Cheikh a tax mu def ko ndax ba mu ñuy jàpp dañuy jàngaloo alxuraanu karim mag say ñëwee ñuy jàng booba lii xewagul woon ñaareel baat ba sëñ Mudu Roqee di wax suñu waajur naa ko yéen suñ gaawaan nee na du ngeen ay taalibe ay doom ngeen booba juddooguñ ñu Matar géey mi bàyyam moo moom ngayeen ji liggéey mi maam góor mooy bàyyam ñoom ñëpp suñu da leen daan taxaw dem tey door a ñëw kon ku xamul tey rek mën ngaa yaakaar ni suñu sëriñ daal làmbutu waaye lii boo ko suñu seex daan def gis na suñu judd ji liggéey mi di dooy màngoor géey Gueye teew suñu seex jàppale na bàyyam bataay ba ñun ñëpp ñu feeñ ci kon li nga def kon day mel ni jëf la joo xam ni yàgg na lool moo tax ma bëgg balaa suñ bee dem rek daara maam Cheikh Anta ñi nga xam ne suñu tàll taal na otoom ñëw ba ci biir daara ji ak guddi dong yëpp siyaare ko ay teraanga mi katalika day ñëw ki daara ji ba lekk kooku kon day mel ni balaa moo dem ñu sant ko day am solo lool ku xamoon démb da xam ni cosaan li démb la waaye da ko gën a dëgëral gën ñoo jàppale. ba nga xamante si te booba sëñ Amady Mbacke ngi dund sëñ Amady ngi dund sëñ As Guèye ngi dund maa ngi wax sëñ Moxtaar rek di maa ngi sëñ As Guèye demee hôpital sëñ Cheikh daje As Guèye moo koy seet si bi xëyal si As Guèye mooy di boroomam te booba moo ngi naal forage bu bëggoon bëggoon koo ko def Daaru Salaam bi mu ñëwee dimanche yi guddi ñu daje ko sëñ As booba sëñ Matar ak yóbbu booy juróom bu hôpital ñu xëy wuy di boroomam maanaam fu ne rek jàppal nañ ko fu ne taxawu la fa daara ji ay ndigal dafay ñëw ci wàllu dugub wàllu ceeb wàllu lu mën la doon kon moo la kon bu ñuy amee ku xamul da nga yaakaar ni rek tey la waaye moo boo jëlee la woon démb tey door a ñëw wala kon faaw ñu leeral ko di ñaan yàlla li jàng ci alxuraanu karim muy quatre-vingt-quinze ak trois yi jàng tey muy boo xoolee soixante-dix-huit wala boo lañ jàng ak trois yi jàng tey muy soixante-dix-huit lépp yàlla àggale yéene yi sëñ Cheikh mii àggale ko sëñ Modou Roqee mi nga xam ne moom ngi def waaye yàlla yàggal ko fi tëggalal ko ba yéene ji am ci alxuraan ak xasida ak si faa ma yàlla defal ko ko loolu maa ngi sax ci donga yi ak mboolem délégation yi nga xam ne am nañ ko moom comme sëñ Demba sëñ bi daal bëggoon a dem moo tax ma bëggoon naa indi kàddu yooyu rek ñëpp xam ne teraanga ji du ñun waaye moo tax mu def ko te ñun jot si pare ñu demee këram liñ jox sëriñ fi baas bi mën ko jox liñ jox sëriñ ca am loolu mañ ko jox kon day mel ni mbiri mbiram la kon dañuy ñaan yàlla àggale yéen taxaw ko baax a baax léegi daan liggéey suñu bàkkastu daan ko dekkeel tawfeex ñu daan ko fekkee suñu bàkkastu jox ko benn bi si yére bu weex tàll ne ko maa ngi ñaan yàlla nga dem ba weexee nii daan nañ ko fekkee ci tawfeex suñu am daan na ko wax naan na nga ko bëggee ak noo ko bëggee danga ko amee noonu suñu asgede bàyyi sëñ Muudu mii daje nañ fekk sëñ asgede ngi seex nuyu ko nu ko sëñ gaawaan ngay liggéeyal sëñ Tuubaa ngi liggéeyal demal du am benn ndog kon yàlla am benn ndog sëñ gil nunu sëñ aboo mii fi nekk yàgg ak yàlla na yàgg ànd bare bare bare bare bare bare bare bare day mel ni waa Daaru Rahmaan ñii sëñ Cheikh sëñ Afe Gay kenn ci ñun sama mag moom lay denc te kooku Mati Gay yaayam sëñ gaawaan na ko tudd mu ngi am na cent trois ci ren Matar Gay mi xam na kon day mel sëñ Gana ko tudd tuddee ko Aminatu yaayam si yaafe gay moo ko yor te moo ngi Daaru Rahmaan sama rak xadi mbàkk xadi nday xadi fa lay sëy kon boo boolee ñun ñi ak si yaafe gay xamoo ko waaye ñoo bokk lépp te loolu suñ budooxee moo ko daan leeral ba mag ñi xam ko ba egsi fii kon te lépp lépp suñu Cheikh Anta ko tey jii kon mbir mi du mbirum Balla waaye suñu Cheikh moo am moo moom kilifa di suñu ñëw nga jox ne ko defaat lépp tey jii luñ fi joxe rek mooñ ko def lool kon incha allahu kàddu yooyu war a ñëw dana ñëw waaye bii moom maa ne woon naa ko jottali ñu xam ni lépp si seex la si batal ñoom la koy seedeel seedeel si ndaare yi teew yëpp ñaan yàlla àggale yéenim dëgëral ko baax a baax a baax a baax a baax bay liggéeyal sëriñ Saliou liggéeyal ko sëriñ Moxtaar te daan nañ ko fekkee li mu liggéeyal El baax Baara liggéeyal sëriñ Mountakha sëriñ Sidi Moxtaar yàlla yàlla gën koo dëgëral moom yooyu tam nga dem ba liggéeyal kooku mu gërëm la gërëm yu rëy rëy nga ànd ko mu ànd ko mboolem taalibe yi ànd ko mboolem jullit ñi dara gis Sëriñ Tuubaa wa aaxiru da'waanaa kon day mel ni kàddu yu rëñoo sax waaye ñii moom dama ne woon sëñ Mbàkke ko jéem a ko jéem gëstu sama bopp balaa bee dem kuñ tuddee bi mu jox ma li ma jox sëriñ kon bisi bisam la mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te nuyoo lislaam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa di yëkkati ay kàddu ci turu daaray maam Cheikh Anta Mbàkke mi nga xam ne suñ baara suñ balla moo ko moo ne ca bopp ba ànd ko mbooleem waa daara ja suñ ci tuddee suñ asfaale baaxum mu yóbbaale ñëpp daara ju daara ju njëkk ja ak daara ju mujj yi ñaari daara yëpp ci seen tur ci la sëñ la teewee fii day mel ni ñoom la delloowaat lépp lépp tamit ñoo ko doon coordonné lépp tamit ñoo ko taxaw ba mu agsi fii tey sëñ Balla day mel ni daa ànd ñoom rek waaye ñoo yor lépp sëñ Balla tamit nee na bu cant gi ci ñoom la ciy jiital ak jigéen ñi góor ñi ak jigéen ñi soxna Ndeye Astou teew na bu ñu ko tuddee tudd suñu asfaale mu yóbbaale ñëpp ci daa ci turu daaray sëriñ maam maam Cheikh Anta ci la yëkkati kàddu yi kàddu yi nag ñaari xaaj lay doon mooy kàddu yi cant ak kàddu yu ñaan waa daara maam Cheikh Anta ci njiital sëñ Balla ñu ngi yëkkati ay kàddu di sant mbooleem ñi nga xam ni ñoo yëkkati bis bi jëral leen ko te dara taxul lu yàlla ak alxuraanul karim yi nga xam ne ci lañ nekk nee nañ kàddu yooyu dañ ciy jiital kilifay kilifa ak sëriñ Mbàkke Jéy muy sëriñ Seex Anta mi nga xam ne moo fi jóge léegi te yëkkati kàddu yu am solo waajuram wii di suñ Ibra la yëkkatil ko ko muy kàddu gu jot goo xam ne daanaka kàddu googu mënoon naa dugalaale suñ kàddu yi waaye fonk goo xam ne waa daara moom Seex Anta fonk nañ ko bis bi moo tax ñu yëkkatiwaat kàddu ni dañ ko jëmalewaat ci mbooleem kañ cee jiital mooy suñu Seex Anta Mbàkke mii kilifa ak sëñ Mbàkke Jéey ak mbooleem njabootu sëriñ Mudu Roqaya yaakaar naa kaamil yi nga xam ne waa daare moom Seex Anta jàng nañ ko ngir bis bi ak ngir sëñ Mudu Roqaya sëñ tudd na ko bari na lool loolu lépp nag ñu def ko àddiyee sëñ Mudu Roqaya ak mbooleem ñu ko fa ña fa nekk bar saxam di ci jiital tamit ci kàddu yooyu sëriñ Mbàkke Jéey ak ay kilifaam ndax kër sëñ Mbàkke su mënee taxawal lii ay kilifaam ñoo ko ci jàppale ndax kenn ñu dong mënu def dara képp koo xam ni bala nga xam ni yow yow kese mënoo dem nga bëggoon dem yow kese faawu nit ki am ñu àndal ngir mën a sottal dara nit ki mënut bind mënut a dund saa keneen kon nag moom bu nee taxawal lii muy loo xam ni kilifaam day jóg ñëw fekke ko ay waajuram ñoo ko ci tette ñoo ko ci sant di sant ay waajuram yooyu nga xam ni ñoo ko jàppale ci loolu ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yi nekk ci koñ bi mbir tamit soo ko yëkkatee say waajur jàppale la ci te waa koñ bi anduñ ko yow dana jafe kon tamit ñu ngi sant waa koñ bi mbooleem ñi nga xam ne nekk nañ ci koñ bi ginnaaw bi ñu sante sëriñ Cheikh Anta mii seen kilifa ñoom ñëpp di sant ba tamit suñu bàlle mi ngi sant ba tey mboolem délégation yi nga xam ne mboolem ñu àndal ci délégation bi sëñ bi tudd na ko léegi mu bari kenn du jërul ñuy tuddaat waaye mboolem ñi nga xam ne ànd nañu moom te jóg ngir daaray alxuraan ji moom Cheikh Anta ak ngir jëmmi suñu Balla ji te muy alxuraan dong moo tax ñu ànd ak moom suñu Balla nee na mi ngi leen di sant bu baax ci turu daara ji di ci jiital kilif sëriñ si nga xam ne yëkkati jóg nañ ànd ak moom te ba mu jógee mbokki mbàkke yi ñu baree bari teewoon nañ fi tey jii yaakaar naa ñu ñëpp gis nañ ko kon ñu ñu jiital ñooñu ñi nga xam ne ñooy ay kilifa nga xam ne ñoom ñoo ko waroon yëkkati mu jóg ngir ñoom ñoom ñu jóg ngir moom mi ngi leen sant bu baax di sant tamit waa ahlul quraan te mooy suñ daara yi nga xam ne ñoo bokk waar wi te mooy liggéeyal alxuraan suñu Seex Anta wax na ko léegi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko laajee lan mooy jikko lañ bañ laajee suñu yaay Aysa lan mooy jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daane kaana xuluqul quraan jikkoom mooy alxuraan kon nag waa alxuraan ñëpp jóg nañ ànd ak suñ mbal la ànd ak daara yi moom Seex Anta ngir xam ni cër bi seenub cër la te mooy alxuraanul karim daanaka duñ leen tudd jëruñu leen tudd suñ Balla ak waa daara al suñ maam Cheikh Anta ñu ngi sant mboolem jàngkati xasida yi nga xam ne ànd nañu moom te ñaari mbir yi kat moom la suñ Tuubaa amoon mooy alxuraan ak xasida suñ Balla nee na mi ngi leen sant bu baax yéen waa jàngkati xasida yi li ngeen nekk moom it ci la nekk suñ Balla ba léegi day nekk ci alxuraan ji di nekk ci xasida yi waaw ñoom ñaar yëpp mi ngi ci dem te ñaar yooyu yëpp mooy bëggu sëriñ Tuubaa sëriñ Balla waa daara maam Cheikh Anta ñu ngi sant mboolem ànd moom dem xarit yi ñi xam ne ànd nañoo moom ñëw teew ci bés bi suñ Balla ak waa daara moom Cheikh Anta ñu ngi sant mbooleem ñi nga xam ne teew nañ ci jataay bi di ay mag di ay di ay gone di ay jigéen di ay góor ñoom ñëpp ñu ngi leen sant ci yëkkati gi nga xam ne jóg nañu ànd ak moom ngir yàlla ak alxuraanul karim sëriñ Balla li muy mujje moom waa daara ji mooy nee na mi ngi ñaanal mbooleem ñoo xam ne jàpp nañ ci liggéey bi di ci jiital kilifa gi nga xam ne mooy kilifa gi suñ mbàkki jëy muy sëriñ Seex Anta te buñ ko tuddee mu mën a yóbbaale njabootu suñ mudu rox yi ñaanal tamit sëriñ Ibra Tall mi nga xam ni moo teew te teewaale njabootu maam Seex gépp mi ngi ñaan suñu borom guddal aw fanam yokk aw wéram ba lim yéene liggéeyal maam Seex Anta maamam mu defee ni gën a kawe njortam mi ngi ñaanal tamit sëriñ Mbàkke Jéey lii nga xam ne sumb na ko at yu bari mu di ko def te at mu nekk mu ciy am ndam yàlla na ko suñu borom gën a kattanal mu ciy gën am ndam ci barkeb alxuraanul karim ci barkeb xasida yi sëriñ Mballa nee na kàddu gi mënut a jotal ñëpp lépp lu mu yëkkati rek waxoon na ma mu gën a jot waaye xëy na jot li waxi jàmbur daa xaw jafe waaye lu ci dëng ci man la waaye moom na mu ko waxe woon gën noonu naa rafet nii ma ko yëkkati waaye ànd nag sëñ daara yi ànd nag jàngatu yi ànd naag sëriñ si ànd naag xarit yi ànd naag soppe yi te loolu lépp nag bis bi moo ko taxa moo ko jaral moo tax mu ànd ak ñëpp di xamal ne tamit bis bi nga xam ne moom lañ jublu te boo bis bii nekk ak ubbi ci bis booba te mooy bisub sëriñ Muudu Roqaya biñ ko ci ñaanal bis boo xam tamit dañ ci daje dañ ci dajale dañ ci dajale dajale addi ju jëm ci maam sëriñ Touba sëriñ Muntaxal Basiir di ñaan suñ yàlla suñ borom guddalaw fanam yàlla liñ ci am ndam liñ ci daan am ñu am ca ndam lu ko gën a kawe الشكر برب كريم كان سكارا وأرتجي منه في الدارين أبكارا شكر برب كريم كان سكارا وأرتجي منه في الدارين أبكارا كتبت زرارا ما قد رجوت به كوني زهيدا وسكارا وسكارا وجهت وجهي بشهر الذي زنت منها لأكرم الراته الورى بسكارى رجوت بالقرآن شكره عمله وربه اليوم عني مقفارا السلام عليكم نيو أكزيار كلاي دور سنتات سيرين جيبور di jiital seen i seex kilifa jotaay bi ak mucc ak gudd fan yàgg bu wér dañoo bëgg ci yow ndax sa bis bii nga jël tuddee daara ji dañoo bëgg ci yow ndax sa bis bii nga jël tuddee daara ji yàlla say may di wër Serigne Balla Serigne daa fonk bis bee waral mu ànd ak délégation bii ko dar ci ak tënk suñ daara jee kenn desul xarit mbokk ak dëkkandoo yaa ngi ko wër asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi ñu di ziar baax a baax di jiital ci nuyoo bi Serigne Cheikh Anta Mbacké ibnu Serigne Modou Rokhaya mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bii di ko ziar baax a baax Mbacké Balla di la ñaanal gudd fan ak yàgg ak wér ci barke Seexul Xadiim di ziar baax a baax mboolem ahlul Qur'an yi nga xam ne teew nañ fi. ci turu Sëñ Balla ànd ak moom gunge ko ci bis bi ak kilifa yeeg mboolem dëkkandoo yeeg ñëpp di leen sant bu baax a baax a baax ci turu Sëñ Balla mu mel ni Sëñ Balla comme ni ma ko waxee rek fonk bis bee waral mu ànd ak délégation bii ko dar ci njiital sëriñ Balla Gueye moom ci boppam ak mboolem waa daara Maam Cheikh Anta góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp teew nañu waaye Sëñ Balla mi ànd ak sëriñ Cheikhouna Mbacké Cheikhou ànd ak Serigne Makhtar Mbacke moom Serigne As Gueye mi dugg si léegi ñoo ngi baax baax moom it waaye ànd ak Serigne As Fall baaxul ñu ngi noonu bay Serigne Mbacke ak Serigne Goro Fall Serigne Mor Mbacke Serigne Omar Mbacke Serigne Hamidou Mbacke moom Serigne Abdou Diandoum ñu ngi noonu sëriñ Moussa Diop Nasru moom it moom ci jotaay bi ak Serigne As Gueye Ndiaye ànd ak Serigne Mbacke Diop Serigne Hamdi Mbacke Saxiir Serigne As Gueye Ka. niki noonu Serigne Baye Salihu Fall Baye Salihu Diop Serigne Cheikhouna Top Serigne Cheikhouna Touré Serigne Daara Serigne Cheikh Jili Fall moom it kada Serigne Fallou Saw moom it Serigne Daara ñu ngi koy nuyu baax di ko beer am nuyoo Serigne Jili Ngom niki noonu Serigne Jili Guèye Touba Darou Mannaan niki noonu Serigne Baye Diop Xasida moom it Serigne Ibrahima Mbaye moom it jànkatu Xasida ndeysaan Serigne Lamine Tall moom it moom ci jotaay bi Serigne daan ñing Serigne Daara. ñi ki noonu Serigne Omar Fall ñëpp xam nañ ko sëñ daara yi euh, Serigne Cheikh Fall moom it jànkatu xasida la Serigne Xaalim Saw ni ki noonu Serigne Moustapha Guèye jànkatu xasida moom it moo ngi ci jotaay bi Serigne Abdoul Ahad Gaaj moo ci jotaay bi moom it Serigne Mbaye Tall euh, ni ki noonu Serigne Modou Guèye Serigne Dame Mbaye ñoom ñëpp ñoo ngi ci jotaay bi wax dëgg Serigne Pape Samb ni ki noonu Serigne Mbaye Tall moom it waxoon nañ Serigne Modou Guèye Serigne Fallou Diaw Serigne sëriñ Xaarim Diop moom it ni noonu soxna yi ñu ngi ànd ak waa daara ji ñoom it kenn desul soxna Asu Ndaw moom ci jotaay bi ànd ak mboolem waa daara ji soxna maam bu sa gëri soxna maam jaara ndaw moom it soxna daara nekk daara di jàngale ni ki noonu soxna Binta Diop moom it sëriñ euh, soxna May Njaay euh, ak mboolem ñi xam ne ñoo des ci biir ñëpp te xëy na suñu xel lënt ba mënuñoo àgg ci seen i tur waaye ci tënk daal sëriñ Mbay Diouf mooy Baye Mbay Diouf moom ak euh, sëriñ ñëpp daal xam naa bu euh, ñi xam ni tur ñu leen ñi jot a tudd dañuy yóbbaale seen i tur. Euh, suñu Roqeya ak njabootam njaboot suñu Seex Anta gi daanaka suñu Maam moo leen jàngal alxuraan ba ñu xam li ñu xam lépp kon suñu Maam Balla mi jot na ñu fonk ko teg ko palaasam waaye itam gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu waxoon ba léegi loolu mooy daw mooy xayrukum man ta'allama alxuraana wa allamahu ki gën ci yéen. mooy ki jàngal xanaan ba noppi di ko jàngale te loolu suñ maam la day feeñ ci moom saa buy saa buy dox boo ko xoolee da nga yaakaar ne ab donga la buy jàng waaye saa boo duggee daaraam fekk fa ay téeméeri téeméeri nit ñoo xam ne koo ci xool da nga xam ne kii mën na kilifa sëkk te moo la jàngal alxuraan ba nga yor say taalibe jàng mboolem loo war a jàng ci xam-xam suñu asfaari baaxum may ca kaw doy na ci seere ndax doomi suñu muru baaxum la di sët suñu moom faasa baaxum suñ maam jàng alxuraan ba jox joxe ko muy jàngale alxuraan ba mokkal ay doomu aadama te tey boo ko fekkee daaw baaxum ci kaw lay toog nit ñi toog ci suuf mam Balla mii dajanaa ak moom keroog dafa ñëw toog ci suuf suñu asfaale toog ci kaw te loolu mooy li ma doon wax ci aaya bi aaya bi léegi rek euh, allazina yamsuna alal ardi hawnan saa bu ñuy dox ci kaw suuf si niti alxuraan yi niti yàlla yi dañuy mel na ñoo xam ne tekkiwuñu dara waaye nag saa bu ñuy wax ak ab jaahil xaalu salaaman sa bu jaahil yi di commentaire ñoom jàmm la ñuy wax daal yooyu waaye ñooñu boo demee ci biir aaya yi suñu borom subhanahu wa taala da da leen di tàgg di wax na ñoo ñi nga xam ne dañuy wax naa rabbana hab lana min azwajina suryatina qurrata a'yunin waaw moom nag qurrata a'yun boobu suñu borom da koo defal ci ñi nga xam ne nii jaar nañ ci loxoom jaar nañ ci peggam ñëpp rek suñu borom dafa def ñoom loolu kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu kàttanal ko te dëgëral ko te dëgëral Serigne Ndiaye mi nga xam ne moo taxawal bis bii nga xamante ne nii bis bu mag a mag la di bis boo xam ne bisu jàmbaar la mu di sëriñ Modou ya li may daanele ci sëñ Modou mooy euh, digganteem ak waa kër sëriñ Touba yi sëñ Abdoulaye da daan jóge Touba dem taw fekk fa sëñ Modou Rokhaya mu ne ko yow laay wétali ko te loolu day répété waat ci sëñ am sëñ am dun sëñ Saliou mas na ko woo mu ànd ak sëriñ Jaga la ak sëriñ Mamoun si ba mu ñëw mu ne ko dama lay wétali ko fi des fi di ma wétali ndax booba xam na ne sëñ Amadou mu ngi ci waajtaay moo tax keroog bi sëñ am demee sëñ euh, euh, sëñ Sidi Muxtaar ne Daaru Salaam ku fa taxaw ñu far say bakkaar te sëñ Sidi Muxtaar ku ne xam na ne du koy waxantu sëñ Mor Mbay Siise sëñ Amadou mas na koo jox loxo sëgg sëñ Mor bay Siise ni ko siggil wala dootuma ñaan ndax yow askanu Mbàkke ku la gën taxawutu ci euh, keroog rek Baye Ibra Ndiaye mu ngi nettali ci teewaayu sëñ Asfaale Baaxu mais di wax ne ba ñu nekkee gaawaan ak sëñ Amadou dafa ñuy tëgg ca gaawaan paax ga suñu amidu ne leen tëgg moomu may dégg de bu leen ca dem ñu daal di rocceeku daal dem ca tëgg mooma waaye yàlla dogal yàlla nattu leen waxee nitu yàlla bi ñu wàññeeku ñangur mu mag moo taxaw ci digg mbedd mi dogale leen ñu lu ne ñu tari ko lu ne ñu wax ko ñangur mi taxaw bañ a dem ñu jéem a xeex ak moom ñangur mi taxaw waaye bi ñu tuddee turu suñu amidun ci la ñangur mi ne mes gisatuñ ko bi ñu xëyee suba ñëw bëgg ko am ci leen suñu am ne leen ñàngoor mooma du kenn ku kenn dàqu ku dul man mii toog di wax ak yéen ne leen bu ëllëgee lu ma leen digal def leen lu ma leen tere bàyyi leen te xam ne seen digal ci la nekk wa axiru da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullah sëriñ bi taal nee na mu ngi nuyu mbooloo bu baax muy góor ak jigéen mag ak ndaw nee na yàlla def na ne moom mii léegi daf ma am lu mu ma wax sëñ Cheikh. sëñ Cheikh nee na moom léegi nii da ko am lu mu ko wax. maanaam ah, lépp lu ma war a wax. nee na lépp lu ma war a wax. damaa bëgg nga waxal ma ko. damaa bëgg nga waxal ma ko. kon maa ngi ko ciy sant bu baax. sëriñ bi sëñ Ibrahima nee na mi ngi la ciy sant bu baax. ndax bis bii tey bu ñu fi dajee. nee na bis bii tey bu ñu fi dajee. yàlla ak sëñ moo Rokhaya. nee na yàlla ak sëriñ Modou Rokhaya la. moom tey moo fi sëñ Modou Rokhaya. tey yow yàlla dogal na yaa fi sëñ Modou Rokhaya yàlla sax. kon bis bu bisam. nee na kon sëriñ Cheikh bis bi sa bisa. kon nag. kon nag. sant. sëriñ bi nee lay sant. ci li ci cër bi nga ko defal. na yàlla fay. sëriñ Cheikh nee na na la yàlla fay. li ci des nag. sëriñ bi nee na li ci des nag. mi ngi sant nee na. nee sant nag. sëriñ Mbacke Dieye bu baax. nee na moom mi nga xam ne. moo am yéene ji. am bëgg-bëgg bi. am yaakaar ji. am yaakaar ji. bay woote bis bii. bay woote bis bii. jamono bi nga xam di ko woote ci jamono bi nga xam ne. ci la ñuy waajale addiye ji. ci la waajale addiye ji. moom ñëpp di rafetlu. moom la ñëpp di rafetlu. di ko ci sant bu baax. nee na di ko ci sant bu baax. na nga xam ne. nee na na nga xam ne. sa sëriñ. sa sëriñ. Serigne Cheikh Anta mi di Serigne Cheikh Anta. nee na mi lay sant bu baax nee na mi ngi lay sant bu baax. di la gërëm. di la gërëm. ak say mbokk. yaa say mbokk. ak say dëkkandoo. ak say dëkkandoo. ak say àndandoo. ak say àndandoo. nee na lépp lu ngeen bëgg ci bis bi. nee lépp loo xam ne bëgg ngeen ko ci bis bii. yàlla na leen ko yàlla defal. yàlla na leen ko sunu borom subhaanahu wa leen ko sëriñ gaawaan defal. defal leen ko Cheikh Mouhamadou Mamoun defal leen ko. borom bis bi defal leen ko. sëñ Modou Roqee borom bis bi defal leen ko. man na ko. man na ko. am na ko. am na ko. ndax kum ne yaay njëkk sëtub sëñ gaawaan. kum ne yaay njëkk sëtub sëriñ gaawaan. yombul. yombul. tànneef la. tànneef la. te yàllaa ko tànn. te yàllaa ko tànn kon. sëñ Modou nag. sëñ Modou nag. ku amoon fulla la. ku amoon fulla la. fayda la ku amoon fayda la ku amoon taalibe ak taalibe la waaye kenn du ko waaye sëñ Modou kenn du ko yam ci dëgg rek lay dox ci dëgg rekk lay dox sëñ Touba rek la sëñ Touba rek la bëggoon ak sëñ gaawaan ak sëñ gaawaan yemalewu leen yemalewu leen ak dara kon nag kon nag sëñ Cheikh moom mi ngi leen di sant sëñ Cheikh nee na moom mi ngi leen di sant mi ngi sant ñi nga xam ne mi ngi sant ñi ñoom lañ tudde bis bi ñoom lañ bi sédde leen ko sédde leen ko leen di sant bu baax sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax. lépp luñ ci def rek. nee na lépp luñ ci def. taxawaay buñ ci def ak taxawaay buñ ci def. yal na leen ko borom bés bi. nee na yal leen ko borom bés bi fay. la ca des tam. la des tey. mu ngi sant autorité yi. mu ngi sant autorité yi. di fi jiital préfet. di fi jiital préfet. taxawaayam rafetlu na ko. taxawaayam rafetlu na ko. bu baax a baax. bu baax a baax. di sant itam commissaire. di sant nag commissaire. police bu Mbàkke. police bu Mbàkke. ndax seen taxawaay. ndax seen taxawaay. gis na ko. sëriñ bi nee na gis na ko. rafet na ko rafetlu na ko. mi ngi sant tam. mi ngi sant tam. commandant bi. commandant bi. taxawaayam tam. taxawaayam tam. rafetlu na ko rafetlu na ko. kon nag képp ku ci dugal sa na képp koo xam ne dugal nga ci sa loxo. moo xam noo ko ci dugal. noo xam noo ko ci dugalee. moom nee sant na la. sëriñ bi nee moom sant na la. ñaanal mu ngi lay ñaanal. ci barke borom bés bi ci barke borom bés li nga bëgg. li nga bëgg. yàlla defal la yàlla suñu borom defal la ko. loolu nag yombul. nee na loolu nag yombul. ndax moom mii day. ndax sëñ Cheikh mii day. dama ko jàpp. nee na moom da jàpp. ba muy woote. ba lépp lu muy woote. dinaa ca teew. dina ca teew. taxaw ca. taxaw ca. moo ko jëfee. nee na sëriñ Cheikh yaa ko jëfee. lii sëñ kii. Euh, sëñ Daara bi wax léegi. lii sëñ Balla Gueye Daara wax léegi. ne sëñ am. ne sëñ Amidun. sëñ Mbacke Astu. sëñ Mbacke Astu. sëñ As Guédé. sëñ As Guédé. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. dañ koo sant. dañ koo sant. waaye dama bëgg nag. mais dafa bëgg nag. moom ma ciy boole. nee na moom mu ko ciy boole. man mii. moom sëñ Ibra Tall mii. dama koy sant. sëriñ bi nee na moom da lay sant. ndax man sëñ Gaane rek laa gëm. ndax nee na moom sëñ Gaane rek la gëm. moom rek laa la yaakaar. dem fenn. nee na moom du dem fen su ma génnee fii daal. su ma génnee fii daal. Daaru Salaam lay dem. Daaru Salaam lay dem. gis sañ gaawaan. gis sañ gaawaan. dellusiwaat dellusiwaat. ndax lu ma am. nee na lu mu am. moo ma ko jox moo ko ko jox. moom nag. moom nag. ñun taxawal ñëpp. ñun ñi ñëpp. képp ku bokk ci derect sëñ. képp ku bokk ci deret sëñ gaawaan. war na koo sant. nee na amee na nag cant. war na koo jàpp. war na laa jàpp. war na laa gërëm. ñëpp la taxawal. nee na ñëpp nga taxawal Mbàkke. ñëpp la sagal. ñëpp la sagal Mbàkke. man day. moom day. tiituma dara man. nee na moom tiitut dara. ragaluma dara nee na ragalul dara. dara feesut sama dara feesut bëtam. lu dul sëñ Gaawaan lu dul maam Cheikh da bëgg na li mu bëgg nag. sëñ Abo. sëñ Abo. mu fi sëñ Modou na xam ne. na xam ne. jëmm jii day. jëmm jii day. ko dong la bëgg. liggéeyal ko dong nga la bëgg. liggéeyal sëñ Gaawaan dong la bëgg. liggéeyal sëñ Gaawaan dong nga la man du ma naafeq. nee na moom du naafeq de. dëgg rek laay dox. sëriñ bi nee moom dëgg rek lay dox. te sëñ aboo day. te sëñ aboo day. sama xarit. nee na xaritama. day waxtaan ak man day waxtaan ak moom. waaye li ma koy xamal. waaye nee na koy xamal day. na jàpp jëmm ji na ji tedd ji. xam ne kii day. nga xam ne sëriñ Cheikh mii day. ab baay faalam la ab baay faalam la. sëñ Modou Maama na ko ñor. sëñ Modou Maama na ko ñor. sëñ Gaawaan na ko ñor. sëñ rek ko ñor. loolu moom maa ngi ko koy wax. nee na loolu moom mi la ca des nag. la ca des nag. sëñ gaan moom. sëñ gaan moom. bayre bee bari. bayre bee bari. ba nga xam ne. waaye ba nga xam lu fi mën a am rek. lu fi mën a am rek. na xam ne ay taalibe la. nga xam ne ay taalibe rek lan. sëñ Tuubaa rek lañ yaakaar sëñ Tuubaa rek lan yaakaar. te sëriñ Tuubaa na mooy defar lépp. kon yàlla na defar lépp. yàlla na defar lépp. rek la ne woon. nee rek la ne dina ko wax. dina ko wax. ndax loolu la bëggoon moo waxal. nee na loolu la bëggoon la ma ciy dolli nag. na la ma ciy dolli nag. nañ leen ragal yàlla. nañ leen ragal yàlla. te yaakaar yàlla. te yaakaar yàlla. te doyloo yàlla. te doyloo yàlla. te kenn xam ne kenn mënut. ne xam ne kenn mënut. kenn amut. kenn kenn du dara. kenn du dara. yàlla rek a fi nekk. yàlla rek a fi nekk. yàlla nag. yàlla nag. moo bind. moo bind. te yamalewul. te yamalewul. ku xam loolu de. ku noppalu. boo duggee ci kër de. nee boo duggee ci kër de yi. gis ñu bokk ndey ak. di gis ñu bokk ndey ak baay. kii rëy. kii rëy. kii tuuti. kii tuuti. kii wér. kii wér. kii wérut. kii am xam-xam. kii am xam-xam. kii amul xam-xam. kii amul xam-xam. kii am wërsëg. kii am wërsëg. kii amul wërsëg. ku def loolu. ku def loolu. suñ borom. suñ borom. du ndey ak baay de. nee na du ndey ak baay de. kon nañ xam ne suñ borom. nañ nga xam ne suñ borom. moo parparloo. moo moo séddale. moo séddale. te yemalewul. fa mu ko njëkkee nag. fa mu ko njëkkee nag. mooy rasulullahi sallallahu mooy rasulullahi moo mooy sama bunt. nee mooy sama buntu. foo mën a jaar. foo mën a jaar. te sukkandiku ci lislaam. te sukkandiku ci lislaam. mooy buntu bi. nee na mooy buntu bi. kon farfarloo am na. kon am na. kon nag. kon nag. cërëm bii. cërëm bii. kum neex. kum neex. kum naqari. kum yàlla ko la ko defal. kon nag kon nag ci santaat nee nañ ci santaat suñ borom bis penc nag dina ñëw nee na bis penc mën naa bàyyi xel ne ñëw di te kenn xamul kañ la te kenn xamul kañ la ak fan la ak fan ak naka la ak naka waaye day waaye day lu jërë sedd la nee na sedd kon nag kon ku xam loolu. ku xam loolu. di nga nekk ci lu baax. di nga nekk ci lu baax. di wax lu baax. di wax lu baax. di yéene lu baax. di yéene lu baax. di xalaat lu baax. di xalaat lu baax. te nangu ndogal bi te nangu ndogal bi. waaye seex mii de. waaye sëriñ seex mii de. ku ko bañ. ku ko bañ. na sant yàlla. nee na sant yàlla. ku ko contre. ku sant yàlla. na sant yàlla. bis penc day. waaye bis penc day. diggante àjjana ak safara. diggante àjjana ak safara. miir ba ca nekk. nee na miir ba ca nekk. laxraat la tudd. laxraat la tudd. nit dana ca yërndu. nit dana ca yërndu. ba mu nekk àjjana. ba mu nekk àjjana. yaakaar na mi ngi ci donkaasi gi. yaakaar na mi ngi ci donkaasi ñu fekk ko fa. ñu fekk ko fa. na ko dugg naa sa kër. na ko dugg naa sa kër. ñaan lam ndox. ñaan lam ndox. ta nga am ndox. ta nga am ndox. mayewu ma ko. ma ko. dugg naa sa kër. dugg naa sa kër. xiif. xiif. nga man maa jox ma lekk. nga man maa jox ma lekk. te ñu tibb say xéewal. ñu say xéewal. kookee du jox kookee. iñaane woon nga ma. iñaane woon nga ma. wala sa wujj laa woon. wala sa wujj laa woon. nga may liggéey. nga may liggéey. di ma yéene lu bon. di ma yéene lu bon. loolu lépp de. loolu jukko yi ñaaw la. ñaaw rek la. jullit bu nekk. jullit bu nekk. doomu aadama bu nekk. doomu aadama bu nekk. war na koy moytu. war na koy moytu. nit nag. nit nag. dana dem ba jeexal. dana dem ba jeexal. wala jóge àjjana nag. wala jóge àjjana nag. jëm safara nag. jëm safara nag. waaye yàlla bëri yërmande. waaye yàlla lu mu leen di attee. lu mu leen di attee. yoreel nga ma bor. yoreel nga ma bor. mënoo maa fay. mënoo maa fay. amatoo lu baax. amatoo lu baax. lu bon nga dese. lu bon nga dese. te soxlawuma ko. te soxlawuma ko. waaye nag. waaye nag. yow sama bor bi mayu ma la ko. waaye yow sama bor bi mayu ma la ko. te jéggalu ma la ko. te jéggalu ma la ko. danga ma koy fay. danga koy fay. xam nga lu leen suñ borom attee. mais nag xam nga lu leen suñ borom di attee. jéggal jéggal. ak am solo. ak am solo. dañuy jéggalante waay sëriñ bi nee na dañuy jéggalante waay. te yërëmante te yërëmante. te yàlla rek tax te yàlla yàlla defar lépp yal na yàlla defar lépp. lépp luñ fi ñaan lépp luñ fi ñaan. yal na ko yàlla yal na ko yàlla nangu. kon sëriñ Mbacke. kon sëriñ Mbacke. santal yàlla. santal yàlla. sëb sëriñ. la sant. bu la sant. lii nga def. kon lii nga na nga ko gën a mën. yàlla na nga ko gën a te day dem rek. te day dem rek nag. dana gën a yaatu. a fa nga bëgg mu egg fa. borom bis bi am mën na ko. mën na ko mën na ko. tàddi na ko kon Serigne Cheikh. isaaka ma laaxu kàddu yaa ngi. Serigne Cheikh nee na mi ngi sant sëñ ba taal bu baax. nee na sunu waaye nag. doon sunu bàyyi ba noppi. nee na daa doon seen bàyyi ba noppi. bëgg sunu maam. bëgg ba tax. nu fekk. fu mu nu fekk. da ngay ne sax. da ngay defee ne sax. ay mag ak rakk lañ. ay mag ak rakk te ay xarit rek lañ. te ay xarit lañ. wala ay xarit lañ. wala ay xarit waaye sunu bàyyi. waaye sunu bàyyi. sunu xarit waaye sunu bàyyi. waaye nee na seen xarit waaye seen bàyyi. waaye fu mu mës a toog rek. waaye fu mu mës a toog rek. dégg nañ mu wax kàddu yoo xam ne. kàddu yu rafet rafet la. yëpp war nañ koo mën a roy. wala ñëpp mën nañ cee roy. nee na cant yi ni mu ko bëggee woon ci sëriñ bi ni mu ko waxee nee na bu ko waxoon sax du ci mën a àgg nee ñi nga xam ne ñooy autorité yi ci turu Cheikh Diallo commissaire Diallo commandant Sarr nee na nii ñu yombale sëriñ Jéey lii ba mel ne baax ci digg mbedd mi ñu ñëw taxawu bis bi fii te sëriñ day waajal ci bisam bii rek bisam sëñ Modou Rokhaya bii ci suñu kanam ne ko sëñ Ibra Taal waxee da ci dajale addi sëriñ gaawaan di ko yëg sëriñ Touba nee na loolu la sëriñ di waajal mu doon ginnaaw suba nee na li mu ko gën a santeet nee na sëriñ saa boo mosaa dugg ci kër gi. duggee fekk mu def benn benn tabax fekk mu def fi benn néeg. nee na mu taxaw ci ginnaaw. ne ko bu ma dellusee. fu ma taxaw. naa fi na ma yi ma ko santoon. nee na defal na ko bâtiment yi mu ko santoon. nee na bay defal bàyyam waajuram sëñ Mbay Jeey ab bâtiment. nee na boobu bâtiment nag moom la gën a bëggee. nee na koo xam ne bu jëfee. sa xol sedd bu waxee sa xol sedd bu amub yar mu amub yar bokkam yëpp defoo ko defoo ko sëriñ Ndour mi xam moo ko jàngal métier tey jii bi muy indi ci kër gi ay xéewal dafa mel ne sëriñ Jéey mooy sëriñam te moom mii mooy sëriñam sëriñ Jéey loolu lépp ak mbaaxam ak wut lu baax moo ko may kon nag njabootu bawal gépp sëriñ Cheikh nee na mu ngi leen di sant di fedd liwaat rek la la maam Cheikh Anta Mbacke seqoon ak yéen sëriñ Modou Mamoun seqoon ko ak yéen njabootu sëriñ Modou Mamoun gi seqoon ko yéen fii njabootu bawal gi ñoo fi njëkk am baat sëriñ Mor Dieng nee na moom la sëñ bi njëkk def chef de village muy chef de village su Daaru Salaam ak gaawaan gii loolu xam ne sëñ Modou Mamoun ak moom ñoo bokk baay seen bàyyi di kenn di kan di maam Cheikh Anta mu ne ko kon naa doon sëriñ bi nga yor village bi nee na looloo mooy dox ba léegi mosu fee jóg lu ñuy def rek ñoom ñii kenn du leen ci man sëriñ bi nee na mu di sant bu baax sëriñ Balla Gaye nii tam ñu tudde bés bi ak waa kër sëñ Afe Gaye mu ci Daaru Rahmaan sëriñ bi nee na doon na lu ko neex lool ndax suñu borom kat li mu gën a bëgg ci àdduna nee li mu gën a bëgg ci àdduna mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi nag nee na ba ñu laajee soxna Aysatu naka jikko yonente bi loo ci xam mu ne jikko yonente bi mooy alquran kon alquran mooy yonente bi yonente bi mooy alxuraan sëñ Balla Gueye li mu wattuloo ci dëkk bi ay alxuraan ak lim tari ci dëkk bi alxuraan ay kaamil alxuraan noonu lépp yàlla ko suñu borom def ay xéewal sotti ko ci njabootu borom gaam gépp ak taalibe yi ak taalibe yi borom gaam yëpp nee ñooñu lay wax njabootu borom gaam nee bu waxee njabootu borom gaawaan mooy bokki taalibe yi fi nekk yëpp mboolem li wër Daaru Salaam ak gaawaan sëriñ bi nee na mi ñaan ñu dajawaat fii te kenn ku fi ne sëriñ bi nee na yàlla nga yokk ba yëg xolam nee rek moo sedd rek li sëñ Ibrahima Tall wax waaye nee na ci teg benn baat nee na mi sant ñëpp. di leen ñaanal sëriñ borom dolli seen i xéewal may leen ak wér ak fan wu gudd ak ngërëmal sëriñ Touba jërë ngeen jëf ba ñu tàllal loxoy sëriñ def ñaan amin amin amin amin amin ko may ba mu wàcc